ci jàngalekat cadre ci école primaire préscolaire. ak préscolaire jël euh, donc juróom-benn téeméer ci jàngalekatu lu ñuy wax euh, moyen mooy collège yi euh, donc juróom-benn téeméer ci ay professeurs yoo xam ni dañuy euh, secondaire madame ci ci lycée yi lu am solo la parce que ay at a ngi ne li daan jël yépp ci kat day nekk diggante junni ak euh, ñaari junni ak juróomi téeméer kon chef de l'État def na effort yu mag effort yooyu aussi su ko defee c'est parce que euh, am na plaidoyer boo xam ni euh, li nga xamante ni bii ñoo seq système bi ñu leen di wax acteur yi nekk ci niveau central maanaam nekk ministère bi ñu nekk ci niveau déconcentré mooy IA et ak IEF yi syndicats syndicat yi ak organisation de la société civile yëpp dañu ñaanoon ministre ministère mu waxtaan président pour mu yokkal ñu Le ministre vraiment porté nako le président yokk euh recrutement bi té loolu aussi dafa ñuy permettre euh, ñu euh, surtout ci niveau déconcentré bi ñu li ñuy wax euh, euh, euh, pédagogie des grands groupes manam dañ dan obligé parce que amuñu maître doy di def ay classe à double flux wala classe multigrade recrutement ben mel dina ko wàññi bu baaxa baax té it dina tax aussi féexal inspecteur d'académie ak inspecteur de l'éducation et de la formation ndax ñom bu enseignant yi doyul ñom ñoo wara indi solution yi donc recrutement bi mel noonu dina len soulager ba euh, ñu wañi classe yu ñu tëj wala ay cours yo xamante bi bii ci moyen secondaire bi kenn duko organiser wala boobu dañ koy yéex organiser ndax ay professeurs yo xam ne bu quota yi génnee rek fay permettre ñu jël euh, donc euh, ñi nga xamante bi bii ñoo raw ñu yóbbu leen ci centre de formation yi muy CRFPE muy FASTEF ak yeneen centre de formation yi nga xamante bi bii ñëw Cheikh njàngale manam fi ak fin janvier dañu mën a affecté ñoo ñëpp bu ko défé formation bi commencé donc diggante octobre ak décembre 2021 dañu leen affecté ci classe yi incha